xanaa waaru mbir xaw na kay leen na waa Tuuba ñi seen maam ya xalloon yoon wi ñooy weddi sëñ Tuuba ñi seen maam ya ànd ak Bamba boobe ba am ngërëm ñi lee génn ànd ak tey weddi sëñ Tuubaa ñi seen maam ya ànd ak Bamba boobe ba am ngërëm ñi lee génn tey weddi sëñ Tuubaa di diingat wilaaya Bamba tey weddi baatinam di salfaañe tey di ngat karamay Sëriñ Tuuba di juyoo xalifa yi Bàmba tey gantu ay ndigal di noono xasidaam ye ka gàddaay jumay Tuuba bi dal nañu ay gàmmoom bi daal magalam te duñ taktaloo tey ci téerey Sëriñ Tuuba bi dal nañu ay gàmmoom bi duñ te ñëw sanc cib di laabe ci am ndoxam diyaaroo ci kaaraangeem gi buur aare waa Tuuba yaxantoo ci ay marseem ayuk bis bu àjjuma ñu tëj génn julle Mbàkke ngir bañ jumaay Tuuba yaxantoo ci ay marseem ayuk bis bu ajuma ñu tëj jën jule mbàkke ngir bañ jumay tuuba ñi lee ñàkk jom ñoo ñàkk jom ñoo ko ñàkk jom ku juyoog sëriñ tuuba na muñ xiwal ak tuuba ñi la ñàkk jom ñi la ñàkk jom ñi la ka ñàkk jom ku juyoog sëriñ tuuba na muñ xiwal ak tuuba ñi lee jom ñoo ka ñàkk jom ñi ka ñàkk jom ku juuyoog sëriñ Tuuba na muñ xiwal ak Tuuba dañoo génn xeeb seen bopp xëy weddi seeni baay ñu naa déet ñu wor seen maam yada santu sëñ Tuuba wolof ne lu réer cib juddu day feeñ ci jikko ndax ña seen ndey ca saanoo diine duñu weddi sëñ Tuuba dañoo tànnuloon seen ndey ci mbaax ak ci néegi ngëm li lee tax ñu wor seen maam ya daa sant sëñ Tuuba am jom dafay gàddaay te dem sanci cib dëkkam toogaaye koy gëm foofa te ñu bàyyi sëñ Tuuba ku am jom dafay gàddaay te dem sañci cib dëkkam te woo gaaya kay gëm foofa te ñu bàyyi sëñ Tuuba ku say doom yi bay seex see tax la ngay xoloo ci say xaalam sëriñ Tuuba ku say doomi baay seex see xuloo tax la ngay xuloo ci say xaala mbaa say bul yab sëriñ Tuuba baleen fantu yeeg caaxaan yi xaalis jërul lu bon tërëy day alak ñëw leen liggéeyal sëriñ Tuuba te ko xam ne sax ay naara tax ngay ami tabax dogon ay financement doo ko gis muy tabax Tuuba ku say doomi baay seex seexuloo tax la ngay xuloo ci say xaala mbaa say xiila bul yab sëriñ tuuba baleen fontu yeeg caaxaan yi xaalis jërul bon tërëy day alag ñëw leen lëggéeyal sëriñ tuuba bu fekkee xam-xamu tawhiidu ngay wut ci bépp gox wursu waa ngi fii tawhiidu man topp Sëriñ Tuuba wursu waa ngi fii tawhiidu man topp Sëriñ Tuuba su fekkee xam-xamu fiqin dara joow ci xëy la xas ka yor mbooti mboolem ngir yaa moo seeru tey Tuuba

su fekkee bakkan ak bànneex yi ñoo xol ki yor saafaraay seen xol yi kookaay Sëriñ Tuubaa su ndamal Seex Bamba mooy metti seeni xol ki not jamu yëpp a guru moo fal Sëriñ Tuuba su fekkee ndamal Seex Bamba mooy metti seeni xol ki not jëmu yëpp guru moo fal Sëriñ Tuuba maxat moo salaatulaay man baasala nabi maal aali wal asaabi soppey Sëriñ Tuubaa maxat moo salaatullaay man basala nabi maal aali wal asaabi soppey Sëriñ Tuubaa maxat moo salaatullaay من باسل النبي ما العلي والأصحاب سوبي سرين توبا ردا ورحمة وبركة من الله البدي خير من الدنيا وما فيها جميع vidéo bii nag ñu ngi ko defee ci ndigalal ki fi nekkal sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bass moo ko bind jox ko Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér mu saytu ko wax ko ne ko am nga ci sama ndigal te foo ci nekk maa sa ginnaaw noo ngi ñaan képp koo xam ne nii sëñ Tuubaa yitteel na la nanga ko seetaan loo ci war a def nanga ko ci def wa ma tawfiiqi illa billaahi jaajën jëf